Nous ngi leen pour bëggee baax ce soir comme tous les soirs ñoom mbégte tey dellu si ci plateau bi dalal sunu gan un grand monsieur euh, tey la ñuy dalal alors di ko bëggee pour baax baax c'est un plaisir ñu recevoir ko Fichi ci euh, TV. alors ce grand monsieur euh, di def lu nice am style très particulier ci pop médine locale tranquillement nous ak un style bu crazy tey moom la dalal waxtaan Mom. MC Dox maa ngi lay ziar bu baax a baax. waaye Diézo ñoo ngi lay ziar di rebégee di bégee lool lool lool jaajëfaay di kontaane yow si li ngay yëngatu nii macha allah. MC mm-hmm. Ndox la bu Isbul Hakim mercenaire ji xat comme gars yi ni ñu ko xamee rek IDTV wax dëgg fa yàlla rajo baa ngi noonu xanaa dañuy ñaan rek mu dem ci kanam. parce que mm-hmm. yéex naa am. Mm-hmm. jaajëf aca bom euh, <laughs> tranquillement ñu ngi lay bëgge bu baax a baax euh, li ñu lay njëkk euh, laaj MC d'abord nga revenir un ci sa carrière ci hip hop lan moo la ci musique hip hop nga dellu suuf ci sa carrière parce que jis nañ la bi nga ñëw imposé wu nga ak benn style boo xam ni dinañ ci ñëw lu tax ngeen di style bi yëpp dinañ ci ñëw mais d'abord mun nga dellu si tuuti ci sa carrière hip hop si right loolu boo ma ko laajee sax dina ma neex ndax hip hop lu ñu bëgg la. Mm-hmm. hip hop dafa yàgg nekk suñu saa ñun dañ ko yàgg dund. ok parce que ñun suñuy grand yi aussi. Mm-hmm. loolu la ñuy dund. Mm-hmm. looloo tax hip hop bi ñun mënuñu ko baax parce que dañ ko jàng dañ ko war a ji dañ ko uti. ok na nga mbapat waaw waaw mbapat lañ koy waxee presque. Ah. mën naa la wax loolu. waaw ñun dañ ko dundu dañ ci sonn dañ ci liggéey dañoo gestu dañoo dem dañoo laaj. looloo wat looloo tax hip hop bi ñu gën a dugg parce que hip hop ñun bu ñu koy defee day am lu ñuy sentir. du lu bëree sax. daf ñuy indi loolu bëri. looloo tax parce que hip hop dafa lu dëgg la daal hip hop am la. te am boo ko amee da koy gestu. te boo ko gestuwee boo ko ñamee nga ko yow loolu doo ko doo ko bàyyi. doo ko bàyyi. Mhm. ndax hip hop depuis bu ma doonee booy la parce que ñun suñu grand yi. dañ temps yi fan la woon nga ne nga ne. man temps yi fan la woon. temps presque. Ziguinchor Ziguinchor mhm. waaw ñoom euh, Feken Kru bi ngay dégg nii ñoom. kii waaw ñoom Mansour Feken Kru. Mhm. Mhm. na ma euh, jàpp na ma sax kii na ma sax jàngale na ma euh, kii. l'anglais. ok waaw dafa ma am hmm. waaw jàngal na ma sama grand la ñoom ñoo nekk si koñ bi léegi-léegi ñoom ñoo ñuy hmm. conseillé. ok dañu ne nii ngeen di def xam nga lu nice ak lu rafet looloo tax maanaam léeg hmm. euh, concert dañuy jooy. dañuy jooy parce que xam nañu naka la nu fa demee. bu ñu demee ñu copier di xool. hardcore saa yi dafa doon xeex fu mu ñu loolu moo tax ñun ñu gën a dem parce que xam nañu grand yi yoon yoon bu ñu jàppoon yi yoon bu métti la dafa am xam-xam mais yoon la bi nga xamante ne dafa leer mhm. looloo tax ñun ñu bëgg a hip hop mhm. hip hop bi yàgg na mhm. jamono bu may jàng aussi fii lycée boo demee nga laaj leen MC Ndox kan moo créé freestyle maanaam ci classe man maa ko njëkk yooyu yëpp si bëgg hip hop la li ñuy nekk sax di bind exercice si boppam sax. léegi léegi ngay def ay exercice hip hop. ok léegi nag professeur sax bu ñëwee daf daf may gis sax mais bu ma laajee nga carrément sa fait l'exercice hip hop. Mhm. maanaam loolu moom dañ ko passé ko bëgg ñu xool. duñu mhm. tricher. Mhm. loolu da suñu grand nekk noonu ah bu ñu fa nekkoon laaj leen. ok nañ laaj leen euh, maa ngi nuyu sama waa ji ñu euh, sa kii bi. intifo. Euh, bu baax. damay ñëw toog ci wetam mu may expliquer nii la koy demee. surtout maanaam si discipline bi. discipline bi moom moo tax man ma gën a ma gën a ma gën a yokk ma gën a pousse. Mhm. ci ci ci hip hop bi. Mhm. parce que loolu dafa amatul sax man loolu dafa maa xaw a jaaxal. Mhm. mais nag ñoo ngi sant yàlla. ñoo ngi sant yàlla ci maanaam bu ñu naree xool ci grand yi ñu jaar. ñoom fukkeen kurub ñoom xat court side ñoom daaray daaray mbedd presque ñun ñoo ko kiyandoo la ah, ñoom presque yu affaire bi ëllëgoon bi waaw ñun ñoo jiyandoo ci bagage yi yëpp looloo tax xam nga affaire bi dafa nekk suñu sang mm-hmm. te lu nekk sa deret moom day yomb quoi day yomb. mais mais mais eh, MC Ndox bi lan moo ko lan moo lan moo ko ni ndox MC Ndox. oui yow su ma amee naka lañ koy waxee sax yoraguma amaguma. Hmm. mais su ma amee yow moom di nga bokk si ñu may maanaam naka lañ koy waxee jàppale ma. jàppale waaw waaw ok ñu may mooy parce que da nga maa laaj bu ne parce que da nga maa laaj li nga xamante ne yombul c'est pas facile. Hmm. yombul maanaam ñëpp laaj ma ko. ok pourquoi nga tuddee sa bopp ndox. yow hmm. lan moo tax ndox. dafa yombut parce que boo xoolee jamono yu may jàng lycée ji ngaa bo waaw. benn gel rek moo ma ko laaj te gel boobu il est très intelligent. Mm-hmm. elle est je m'excuse. elle est ah, ok mm-hmm, mm-hmm. dafa muus laaj ma ko. mais boobu noonu laa ne ndekk nit ñi duñu benn. ok tur si ndox bi waaw du nen. sama lii moom ma ko feeñal. ok. daf ma maa ngi sant yàlla yal na ko yàlla xaral arjana sama sëriñ bi. sëriñ bàyyi Seydina Aliou Massali. ndax kooku daf ñoo génn ci lëndëm dugal ñu ci leer. ok kooku noonu kenn ko fàtte. moom nëbal ñu dara. ci kaw loolu jamono réer am na. waaw nit day réer. Mhm, day am waaw jamono ci lëndëm beneen. waaw yàlla boole la koo xam ni daf lay tukkal ci leer. noonu la fa demee ci bàyyi si naa yàlla suuf sedd ci kawam. waaw bi ma nekkee ci bagage yàlla xamal ma. Mhm. xamal ma ndox mi quoi jox ma secret ndox mi. Mhm. bakku ma de mais su ma bakkuwee rek ci yàlla laa bakku. fa laa fëgg sama dënd. tuddee sama bopp am si ndox. si ndox ok. waaw zoo di ngay zoo ndekete nit dina lekk ndox muy dox te xamu ko. Mhm. parce que da nga koy fàtte. ndox dafa bëre façon. ndox dafa bëre. Mhm. quand même. Mhm. ñii xam nañu sans ndox mënul dem. Hmm? ndox moom mooy loolu ndox boo togg sax mu ngay yaakaar nii moom ngay njëkk commencé. tey nii ñun fu ñu taxaw fu ñu toog nii maanaam di def émission. ndox bu fa jaarlee du taxaw. ndox lu mu def dafa bëre xoolal taxaw bi. looloo taxaw. ma xam ne ki ndox dafa am njëriñ ndox dafa am solo. ndox dafa bëri maanaa. ok looloo tax ma tuddee sama bopp ndox mu mënoon naa tuddee sama bopp beneen tur. mais non non mhm. man dama bëgg affaire bi direct quoi. Mhm. mu doon ci yoon quoi. ok looloo tax man su damay am aal. su may rappee du moom de. Mhm. jëmm bu may taxawee la. ak fan si ak surtout maanaam yéen ñuy DJ Zo. looloo su ma amee aal rek il faut ma def maanaam résultat mu génn. ok looloo tax man ma tuddee sama bopp MC Ndox. MC eh, eh, Ndox te ndox te loolu mooy source de vie quoi. ndox mooy pratiquement mooy mooy mooy dund. Eh, mais bu ñu xoolee aussi tuuti ci carrière bi tour bi MC Ndox nu mu la dikkee dañuy gis aussi euh, par rapport ak euh, style bi. MC dafa am benn style boo xam ni da nga koy da koy da nga koy indi. sur scène ngay imposé wu da ngay bouger sur scène. Euh, style boobu. Euh, lan lan moo waral MC bu ñëwee sur scène dañuy xam ni carrément ndox ndox ndox euh, ndox ñëw na quoi. parce que dëgg la. lu dëgg mhm. waaw xoolal océan bi nu muy mel. Mhm. ndox moo fi dàq teg. Mhm. ndox laa la wax de. ndox pour nga muy teg du bouse du def dara. mais ndox mën na mais am na fu ngay toll xoolal vague yi. waaw day yëngu day yëngu. parce que beneen melokaan laa ñëw. melokaan boobu noonu. daf may pousse ci lu bëri. Mhm. style bi dafa nekk ci man yàlla moo ko def ci man. Mhm. su may ñëwee parce que dama tricher. Mhm. muy ci kaw ba si suuf ba ngoon. man damay sol lu mat. parce que suñu mag yi njëkk old school yi. moom lañ daan solo solo. kon ñooñu ñooñu dañ leen war a topp jusqu'au bout. parce que loolu dëgg looloo tax man sama style noonu la fay demee. man dama tricher. damay ñëw xool maanaam podium bi ni mu fa demee ma xool jëmm gaa yi. ma ñëwaale ak moom ma tàngal foofu parce que mm-hmm. hip hop la ñu wax mm-hmm. hip hop la ñu wax rap dur mm-hmm. après dur man loolu laa gëm quoi moo tax man su may ñëwee rek damay ñëw ak tàngoor dama bëgg gaa yi feex gars yi kontaan parce que man man li ma bëgg man MC Ndokh man dama bëgg a féexal gars yi seen xol parce que mercenaire la ci xat waaw looloo tax quoi te loolu moom boo xasee ba yëg ci sur keneen ngay doon da ngay après su ma fa paree pare naa. ok waral quoi. Mhm. mais mais mais style musique bi aussi bu ñuy xool euh, pratiquement yaa ngi ko wax léegi façon hip hop bi ngay def. mooy hip hop pur et dur et sans concession. mooy rap rap bu dëgër. waay dëgër def euh, nga choisir def rap bu dëgër bi euh, tey bu nu xoolee tey booy yi pratiquement love bi dafa dafa bëri. mais yow dañuy jéem sax style bi day day dëgër quoi. right. Mhm. di yaa wax xam. ndeke da nga may sàcc ci pet quoi. Mm-hmm. waaw mais noonu la loolu sa job la aussi. Mm-hmm. waaw loolu am na parce que comme li ma la wax rek lu ma la wax rek man dama tricher lan moo dama choisir loolu noonu parce que dama xam ne lu may def nii day dégg. Mm-hmm. dafa sax lu am la looloo tax ma koy def il faut mu dëgër hip hop bu dëgër mais borom borom borom bopp yi dëgër ñoom ñoo koy koos. hip hop bu dëgër day tax sa boobu nooy mu dëgër grand. jigéen soo. Mhm. looloo tax ma loolu ma koy def parce que damaa xam ne que lu may def dafay dëgër. Mhm. dafa war a dëgër loolu style la style la bi nga xamante ne loolu ñëpp a ko dëgër. Mhm. yambar bi ko dëgër. parce que style la bi nga xamante ne day defar. ok ngeen baal ma si tur bi. day defar borom ñaari tur yi olof yi nan lañ koy waxee. waaw parce que bu taxawee euh, euh, podium di la xool yow miy yëngatu di def yenn mu xam ne moom góor la. dina mun a xalaat ni yee. man lii laa war a def. mais pas yeneen yi. mais léegi style léegi booy da ngay waaru. Mm-hmm. sabotage la. Mm-hmm. dafa am sabotage moom ma mais mais nit ki yow yaa moom sa bopp. Mm-hmm. loo sentir ngay def xool lu ngay yaa xool lu la nga def ko. waaw mais tamit boo xoolee tamit parce que mbooloo dafa garaaw. mbooloo dafa garaaw mbooloo c'est pas parce que n'importe quel. nga fa gis. xisam ku nekk day ñëw pour xool naka la ñii dinañ ñëw pour sàcc la xool la loolu yàgg na du tey. waaw looloo tax. style boobu noonu dafa war a ñëw mais léegi booyee nag fu nekk nii booyee dañoo bëgg a bokk hmm. school yi dañ ma baal ci wax bi mais dañ nekk buñ fi ñëwee dañ ñëw fii pour defar dañ fi ñëw pour defar hmm. waa parce que du ñàkk ay gàllankoor du ci am quoi hmm. c'est que dëgg la parce que looloo tax ñun moo tax boo gisee paf yi bëre nii faa yi bëre yi baga que loolu la challenge bi ça ça joue quoi dafa changé quoi daf ci bokk quoi looloo tax. Mm-hmm. parce que ñoom tam dañoo amul gànnaaw ñi nga xamante ne dañuy teg dañuy wax ci ñoom maanam li nga xamante seen nopp day nice. Mm-hmm. ñu may seen problème. Mm-hmm. mais buñ ko amee rek dañuy dem. mais booy instant yii fu mu nekk nii man sax dama leen di yërëm sax. nouveau is maanaam isili isili yooyu. new school yi new school yi nii ah. non loolu kay dafa mënuñu rey rab. rab lu ko bëgg seen xol mu ngi seen xol ba léegi. ñu koy dund ñu koy dund ba léegi. bien vrai que man lool laa ci si booy mais booy man su ma sañoon dañu changer comportement. mais changer comportement du yomb si ñoom. parce que amuñu la nga xamante ne dañoo nekk seen gannaaw di leen tegal nii la fay mm-hmm. mm-hmm. waaw parce que di nga ragal pour nit waaw loolu am na. Mm-hmm. yaa ngi fii booy léegi-léegi leen di bëgg a jàppale pour expliquer leen mais mel ni ñoom ñoo gën a garaaw ñoom ñoo la gën a xam. dañuy mel ni instant yii nii si yow. dañuy rëy quoi dañuy ponkal te rëy baaxut sa waa sa waa nag. nag ku ko gën a rëy. Mm-hmm. te loolu daf fi bëri si temps bi. Mm-hmm. rëy ponkal. Mm-hmm. mais boo rëyee mënoo am dara. Mhm. kenn du la wax dara. Mhm. looloo tax instant fi mu nekk nii colin bu changé rek. Mhm. Sénégal day développé yow day bokk ci lu koy pousse quoi. mais est-ce que rab bu dëgër boobu tey gars yi ñu ngi koy. ñu ba tey. tey ni ko waxee nii school nu ñëw style de musique bi nga xam ni. Euh, indi nañ ko <laughs> euh, est-ce que bu dëgër bi ba tey euh, tey vraiment gars yi ñu ngi koy consommé. si bu hardcore bi. right maa ngi ñëw ci yow li nga wax ni right la est-ce que nga wax. waaw la. waaw parce que DJ Zo lu yomb dafa neex quoi. Mhm. waaw moo tax ma ne la dama lay delluwaat encore ci gannaaw moo tax ma ne la ñu ko gëm. ñu dugal mhm. hip hop bi si seen sang. ba tey ñu seen kër ñoom ñu ngi koy dund. Mhm. mais ñu bëgg lu ñu ngi dégg lu yomb parce que dafa ne gis nga rab yi gars yi di def nii. wóor la a yomb. mu ne yii nii. yii nii pour teel a feeñ la. waaw. xam nga jigéen yow xam nga parce que yow yàgg nga ci bagage yi. Mhm. yàgg nga ci bagage yi yaa mhm. ah, ngi pour teel a feeñ dafa yomb. parce que mhm. parce que fii léeg-léeg da ngay taxaw gars yi ñu ne non non lu yomb rek moom parce que xoolal gaal yi dafa yomb rek looloo tax gaal yi dem. kon hip hop bi maanaam léegi lii da ngay def benn maanaam geste nga boole bi comédie affaire yooyu noonu rek. trop affaire yooyu noonu a ah, xoolal léegi xoolal na affaire yooyu noonu comme de l'eau à mais rab bu dëgg bi bu pure dire bu xaat koor bi mm-hmm. boobu dafa métti boobu neexut boobu il nga job mm-hmm. da ngay liggéey da ngay ñeme lool ak loolu mm-hmm. nga mun a am loolu xoolal teg ko mun naa si table gars yi déglu déglu la ak xel ñu mun laa as apprécier. mais mais est ce que booy def bu dëgër bi aussi bëgg jàllale message gars yi dinañ ko dégg est ce que aussi comme tey booy sil bu jël comme li nga wax dafa yomb euh, lu yomb ñu wax ci loo xam ni ku ko dégg dina la dina ko conscientiser euh, wala mais bu dëgër bi boo ko dee boo ko boo ko def si maanaam gars oh, moom mooy loolu. dëgg la non li nga wax ni dafa am mm-hmm. na. mais léger am na boo defee lu léger nga def li nga xamante ne day am sens. Ah. ok mu am sens mu naaj ñi xam ne que waa ji dëgg-dëgg moom def na effort. Mhm. ah mais loolu la mais fii loolu moo amatul mais da nga maanaam da dul am sens. Mhm. sëñ bi dafa dul am sens mooy affaire bi. Mhm. léegi lu dëgër bi gis nañu sa léegi ku koy def sa dañ koy jëppi. kay ba dañu ne kii dafa daf ko am naa benn grand <laughs> yàlla ko yàlla jàppale grand bu baax na nag. sama grand la. daf ma yàgg daf ma yàgg maanaam loolu daf ko yàgg bëgg ci man. léegi rab bi hip hop léegi xam nga rek. mooy loolu. Mm-hmm. il faut nga def mu xaw a léger. Mm-hmm. gars yi muñ mm-hmm. fat fat nga dem wax na ma ko at. deux ans te su ma ko defee fat fat ma dem sëñ bi. billaay su ma ko defee ma dem. mais xam nga nit ki loo gëm mu nekk sa sang. pour nit ki du yomb quoi du yomb quoi day xaw a difficile quoi xam nga sinon day mel ab gel ci kaw gars yi quoi. ok loolu mais lu léger moom. fépp fu mu mënte ne comme yu bees yi yu génne ni affaire yooyu taf-taf ci fi yooyu noonu mhm. yooyu moom dafa yomb mhm. yooyu moom instant nii gars yi moom noonu la ñuy yooyu moom bu ñu ko dégluwee parce que gars yi loolu lañ bëgg mhm. boo koy boo koy rek ngay am ay candidats yu bëri mais yow tey par exemple da nga bëgg def carrière ci musique <laughs> euh, bu fekkee da bëgg imposer ne day dëgër léegi nga gis ni tey style bi moom mooy booy trop bi ñëw def musique xam nga jàll dem te instant bi booy moom ñu ngi ci am xaalis euh, ñu ngi ci am xaalis mm-hmm. mais yow am na loo bëgg ci rap aussi. waaw ay ci ndimo. est ce que booy topp bu dëgër bu dëgër bi di agressé gars yi ak bu dëgër benn instant est ce que gars yi euh, benn li nga boobu est ce que ko ci am. si looloo poussé lu bëre looloo poussé gars yi. ma mm-hmm. maanaam bi. Mm-hmm. mais maanaam day jeex. te Malick day waraat day nag ndax may jàpp léeg-léeg. ci ci ci daal xam ne fi la am xam nga. man moom wax nu mu ñëwee laa koy tege sur scène ça dépend ku may déglu ak xel mais pas xol. quand même ok n'est-ce pas mm-hmm. Mm-hmm. man hip hop euh, jàllul tuuti. Mm-hmm. ci gannaaw ci li nga wax nii mooy affaire maanaam bii maanaam waaw dëgg la. xaalis dafa baax dafa baax. day wor day defar. yaa ngi gis lépp looy def. loolu nit ñi xam nañ ko surtout yow quand même yow kenn war laa xeeb parce que quand même. Mm-hmm. da ngay jéem a kii laaxatal mais ñàng nga jéem jéem nga def nii. Mm-hmm. jéem nga def nii. Mm-hmm. waaw mais xaalis xaalis xaalis bu lew. xaalis bu lew dëgg dëgg dëgg dëgg. nay ko xaalis bu lew. lépp loo gis maanaam ci wax wax dafa garaaw sëñ bi. dégg dégg tam dafa garaaw xaalis bu leew dafa garaaw quoi parce que mbir mi mën nii mais leew bi moom kenn xamul sa diggante ak. xam nga yàlla la mooy loolu quoi. Mm. Mm. waaw dëgg la. Mm. mais man dama la ne nit ki boo bëggee li ngay ko am na yeneen ni sax doo ko regarder noonu. parce que gis nga du dëgër bi hip hop du dëgër moom di dem ak moom mais mais mais mais quand même mais mais mais bu yàggee mu yomb. Mm-hmm. caan bu dëgër bu ngay naan nii dem ba mu téye sa bopp bi après yow am na nu muy demee si bopp bi maanaam yow sa bopp bi nu muy mel ak benn ak beneen yóoru jàmbur du doon benn mm-hmm. loolu maanaam lépp lay def maanaam gëm ko quoi nga dëgg ko nga xam ne que maanaam lii yàlla dama fi fekk yàlla bu la fa fekk. ñoom loolu lañ def. Mm-hmm. fat fat yàlla fekk leen foofu. mais li ngay def nii pourtant yàlla bu la fa fekk de. Mm-hmm. man noonu naa ko gisee quoi du si ñàkk. kon nag day ci seen bàq fekk la. waaw dégg olof moom dégg nga ko lool. Mm-hmm. waaw loolu moom am na man daal. waaw waxuma duma ko def de mais suñ koy defee nañ ko def si sens. sens bu rafet. mu kuul mu naaj mais bu fekkee na nga koy dem maanaam pour maanaam dóor. si si dóor am na. gaa yaa ngi dóor gaa yi bu baax gars yi lu ñu def nii mën naa ko sëñ bi mm. mais maanaam ko def mu nice quoi te ñuy bàyyi xel maanaam old school yi quoi xam nga mm. ñuy gestu di laajte mm. mais loolu moo amul Sénégal loolu tax Sénégal instant nii mu xaw a euh, loolu mais booy dañu aay booy dañu garaaw booy dañu métti xel bu ñàng la ñore nii ñoom xam nga la fu yomb rek lu yomb rek lañ bëgg maanaam. Mhm. na man ma góobee fii rek mooy lool mais booy itam am na am na si booyu dóob. booy booy booy. si wàllu yoo xam ni macha allah tey euh, boo leen gisee euh, surtout ay révélation ay booy yoo xam ni tey boo leen déggee dañuy bind punch bi xam nga day am feeling day am day nice dañuy xam ni booy carrément li ñuy def dañ koo mën quoi. waaw loolu dëgg la ndax yow loolu yow lii loolu nga gëm au right boo am mm-hmm. mais da si ñàkk maan mm-hmm. xam nga booy loolu la ñu loolu lañ bëgg mm-hmm. waaw mais bind bi bind bi bind bi bind dañ koy jàng sëñ bi bind dañ koy jàng na la ñuy jàngee bind nan la ñuy mais introduction hmm? développement conclusion mais loolu loolu rédaction quoi ah waaw mais rédaction la commentaire la comme mais yow loolu la dara da nga ko kon. xam nga yow da nga maa bi moom naka lañ ko doon mm-hmm. ba ma dem ba fii ma si wax si bopp. Eh, bi mooy bu ñuy def concours ah. waaw yow dem nga nga coach ma mais sa gars yi ñu ne ma maanaam si jury bi. mooy ah. dégg ñu naan ñu naan xaw ma bind bi la non. Mm. mais nag amul problème ñun moom mooy loolu. Mm. man man. man quand même man lu ma def dafa nice. Mm-hmm. man di eh, introduction bi ba développement bi comme mais bi non non non loolu amul. Mm-hmm. moo tax mm-hmm. a jàng. ñu war a xam la. parce que man bu may defee école aussi di jàng lycée Djignabo. avant loolu sax parce que le le le le man looloo tax hip maa neex. xam nga dafa am. rime croisé ok mu am ay rime xam nga. laa gën a topp. moo tax man ma. moom tamit bokk na li nga xamante ne euh, maanaam. Mm-hmm. Euh, kii naa ko ci hip hop bi quoi. moo tax ma ne mais développement nu mu bi. Mm-hmm. ak développement conclusion boo ko mënulee doo dem. Mm-hmm. même jàngoo ko sax. mais boo xalaatee ñii ni ñuy wax yow war nga ko mën a xam bind dañ koy jàng. yaa ngi comprendre tegu ci bit dañ koy jàng. ah. Euh, nga xool thème mhm. rams yi yooyu yëpp dañ koy jàng day ñëw man gis naa ki nga xamante ne jàngul xamul dara mënul téye big mhm. mais moom nii lay demee xam ni ki mais mujjee na càng booy bàyyi fii sax mhm. doo dem doo dem loolu la quoi yaa ngi ne booy dañuy def lu moo lu nice mais nit ki ku bëgg lu yomb lu nice rek lay dafa neex bit am na ñeneen ne bit la ñuy déglu grand léegi biir bi boo ko dégloo da lay yóbbaale. mais yow pour nga déglu maanaam texte bi problème la. Mhm. Ah. am na yoo xam ne biit bi rek moo la ne déglu texte waaw parce que waaw loolu la parce que loolu yomb bi parce que xam nga biit bi dafa day dugg si xol. Mhm. te lu dugg si xol nga am ba neex. mais foog nga déglu parole yi parole que loolu noonu. maanaam message bi. message bi. ku xam ku bëgg a xam. Mhm. mooy mooy déglu message bi. te message bi am na noo koy déglu boo concentré wala da ngay réer. léegi loolu moo amatul dañu ne naa teg benn xolal bit bu moo xam a tegu si rek dem. Mm-hmm. loolu moo tax. Mm-hmm. waaw comme booy nga leen booy yi instant ñoom instant yii. instant yii ñu seen yoon ñu ngi dem waaw ñu dem. ñu ngi dem mm-hmm. de. parce que li ma la jot wax rek la. bu yombee rek dañuy dem. rab bu dëgër bi. rab bu métti bi. ñun dañ ko gëm. dañ ko gëm looloo tax ñoom instant yii nii. ñun ñu ngi leen xaar feneen. ñun ñu ngi toog di leen xaar feneen. tôt ou tard yow lagi, nga jàpp ne dari. Wow, wiiri jaari ndaari dari, wiiri wiiri jaari ndaara ba si tànk bi cokk mais mais mais mais aussi tamit par rapport ak comme li nga wax faral di bind yang thème la waaw kay waaw wax nga wax nga wax Pas li ma beri item aktualite. Oke. bëri ay thème ak actualité ok waaw bët am mais du bët kese bët laa am quoi waaw waaw damay xool maanaam temps bi lu laaj nga xalaat sa bopp xool sa bopp fu nga jóge mhm. waaw ci mhm. yooyu laay yëngatu man tem dama koy dóor mhm. man tem yi am solo yi am maanaam li nga xamante ne day suuxal réew mi wala mu nekk ci yow wala mu nekk ci kenn man ci moom laay maanaam tray ci moom laay xalaat ci moom laay liggéey may bind man boo xoolee sama son yi bëri ñu bëri seere yi bëri damm naa leen parce que nga mën a jël sa bopp. nga teg seere wala nga teg bagage bi nga xamante ne nekkul sa neexul sa nopp. Mhm. ah keneen dana ne neex na de mais da nga gis maanaam toj tojaan di nga bi. mais da nga koy toj. Mhm. nga defaraat te et puis mooy mooy waral maanaam loolu mooy waral nga am maanaam thème bi nga xamante ne da nga koy choisir da ngay def thème parce que da am mer. da nga am lu métti da nga am lu nga xamante ne neexul sa nopp. Mm-hmm. looloo waral maanaam ngay bind thème thème bu neex da lay poussé. Mm-hmm. looloo tax man thème la yëg-yëg la boo xam ni da nga koy da nga koy yëg di ko sentir. da nga koy pour jox ko ñi nga xam ne ñoom. bien sûr mm-hmm. da nga koy ku ngay wax nii. da nga koy yëg da koy sant ñoo yëg nga sentir ko boo ko tegee sur wala boo ko tegee ci table bi rek mu mat. mais loo yëgul mënut a dem. da ngay dégg rek dem. hip hop yëge la ci ñun. te dafa nekk ci ñun te dañoo juddaale ak moom te xamuñu ko. mais boo demee bu ñu demee ci kanam la ñu mujjee nand yow boo nand yow li nga nand sa bàyyi nand ko. yaa ngi gis li nga nand paa bi mère bi da mooy loolu ak parce que ñun bu nekk su ñun ci biir comme lu ma lay wax duñ triser ñun loolu la ñuy sàppi loolu la ñuy bind parce que suñu wax bëree ñun suñu wax bu bëree rek ci microphone bi la. wax bi bu bëree rek. Mm-hmm. devant tout ci public bi la. Mm-hmm. foofu la ñu mën a amee occasion. Mm-hmm. pour mën a teg ñun suñu naxari ak naxari gars yi. mais est que euh, euh, tey comme ni nga ko waxee euh, looy yëg-yëg la. muy génn ci yow nga koy. traay di ko jox ñi ñi ñu koy consommer. mais est-ce que tey public bi hip ñu ngi déglu message bi nga xam ni yéen a ngi koy véhiculer si yéen rappeurs yi. waaw kay parce que man man dama ciy sant yàlla. alhamdulilah man damay dox ci yoon bi sax. damay dox si yoon nit poñe ma damay ñëw si yow bari billaahi si jolof ñii laa lay wax mm-hmm. man sama génn bëriwul sama buuse bëriwul yaa ngi gis mm-hmm. man su génnee rek damay ñibbi su ma entrée rek damay dem liggéey mm-hmm. man loolu mooy samay mbir moo tax am na ñeneen sax dañuy ne mais yow nu mu demee xanaa da nga tukki affaire yooyu noonu yaa ngi gis mais loolu yëpp yi hip hop bi la bokk yaa ngi gis damay dox ñëpp téye ma mu ne ma pourquoi yow MC lan moo tax DJ Zo du teg sa son. barki yàlla. ñii laa lay tegal nii. ba léegi maa ngi ciy am problème. mën na leen wax ngeen raay mais dem leen ngeen laaj ko lan moo waral loolu. parce que loolu son bu son sama son bi dañ ko bëgg a. pure biir bi gars dañ ko soxla. Hmm? dañ ma koy laaj ment ment yoon. mën na leen mais dem leen ngeen laaj Zo lan moo waral loolu noonu. ñu bëri am naa candidat yu bëri dañ ay fans yi dañ may fekk ci place bi dañ may fekk ci yoon bi damay dëgg mais yow mooy loolu mais lépp nice lépp cool xam nga loolu ko waral mooy maanaam maanaam lu may teg moo am sens nu mu dëggër dëgër dëgër dina am ki nga xamante ne bu fekkente ne vingt personnes la mm-hmm. leer na ma quinze dina déglu de cinq bi laa xamul nu mu fay demee. Mhm. waaw kay. mais leer na la quinze yi moom. Euh, ah, li ngay raad ñoom dañ koy. bàyyi man daf parce que dégg-dégg laa fay teg. xàq mhm. bi xàq laay may maanaam parce que nag loolu laa soxla. waaw. Mhm. man borom xel moom lay déglu quoi. ku xel boo ma déglee da ngay tey nga am sens xam nga gars yi la. boo amulee tey mun mënut a dem. mais nag man gëm naa ne moom cent pour cent moom ci côté boobu noonu man ku déglu sama son rek mu bég. ok te kuy dégg. kuy indi jàpp barke yàlla bu dégluwee sama son naajement. billaay xolal mu dem. mu sauvé wu. parce que man du teg n'importe quel son. man du ma yu non non non man sama xol dama koy xool xoolaat ko ndaxte am na fu ma jaar. waaw dama jaar fu bëri. waaw man du ma jëy sama bopp te su ma jëyee sama bopp c'est rare parce que dañ la saabu du fóot boppam. Mhm. mais man damay fóot sama bopp parce que dama xam lu nekk ci man. Mhm. yaa dama jaar fu bëri bi. sama jaar jaar. Mhm. si. nekk na ci ndox. Mhm. nekk na ci àll. nekk na ci pax. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. parce que euh, Ziguinchor dama doon dem poor waaw dama dem port. ci gaal day am gaal yi nga xamante ne dañuy nekk noonu ci digg euh, géej yi. xam nga damay dem di di liggéey baat. di changer air. te yeneen booy ñi ñu. di defar voix di defar voix gars yi ñu ne rap parce que rap rap dafa am bàyyi ci waxin. ci rab ak ci jëfin ci lu ne mm-hmm. mais amee nu mu amee bàyyi rek yeneen gars mais rab da nga koy fay akom da ngay liggéey bàyyi mm-hmm. dangay ngay joob ñi xam ne bàyyi gars yi da nga xaat mm-hmm. man dama doon dem géej di laal foofu di xam di jën di génnee di di dugal di génne di dugal damay dem ba si catu maanaam naka lañ koy waaye sa gaal yi affaire yooyu noonu yëpp dama koy def pare foofu jóge foofu dem maanaam ci faro yi ci naka lañ koy waaye sax ku lañ koy waaye maanaam bu ñuy kii noonu ah, ah, ah. dem di yuuxu léegi maire sax dañuy téye dañuy dof mhm. barki yàlla mhm. da ngay yuuxu xoolal def lu may def xam nga mooy loolu maire yi di ma xool su may ñibbee ñëpp dañu ma xool mhm. loolu si ngëm ngëm la bëgg fii dama naan dem ci pax gas pax waaw ci pax yi gas nii comme maanaam camion yi affaire yooyu parce man j'aime sportif man sportif la je sportif nga xam ko xamoo boo taxaw nga xool ma tag bi nga xam ne gars yi yee mm-hmm. comme dama lay yàgg ne man dama tricher góoma tricher xaw ma tricher sama bàyyi xam tricher mm-hmm. samay waajur yi xamuñu loolu mm-hmm. duggoon ci pax def samay science ba pare ma yuuxu loolu yëpp pour defar voix bi loolu yëpp pour lan la pour public bi xam nga maanaam pour maanaam jox leen li jox leen li ñu maanaam jox leen li ñu bëgg dëgg dëgg dëgg parce que man loolu laa xam quoi pour su ma yégee ci kaw ñëpp xam ne yee moo tax am na su ma yégee ci kaw concert rek sur le scène rek damay am aal parce que xam damay xam ne man dafa joob fu ma jógee la looloo tax loolu moo waral lii nii jaar-jaar mu ngi fu ne da ngay jaar-jaar ci côté yooyu gars yi dina jàpp dof dina jàpp lu ne fekkete yow li nga bëgg li nga xam xam na ko moo tax booy fu mu nekk nii booy li ñu war a liggéey booy liggéey ñu liggéey am na ñu liggéey nag waa ñun li ñu ko waxee da dañ ko wax pour defar mhm. looloo tax instant fu mu ne man lu koy ñaax booy dañ dem uti liggéey mhm. nañu joob hip hop kese kese kese kese. du mun mënut a ne. Mm. même jour yi même ku nga xam day kuy toog maanaam maanaam xoolal di xool gars yi muy jël ci hip hopeurs yi il faut xam nga mu am waa lu mu bëggee ak lu muy def mun a def. mais mais est-ce que euh, loolu xaw leen taril tuuti. Ah, nga bëgg def rap. Euh, c'est vrai que ni dafa am métier. si si si nga bëgg def rap ba ah. pare bëgg am sa métier di job sa job est-ce que aussi tamit loolu tàrrewul ñu bëri parce que booy xool tey euh, ñi nga xam dañoo concentré ci hip hop rek nekk ci di job. pratiquement booy xool ñoom ñoom ñoo ñoom ñoo nekk ci kaw tey. si si bu fekkee da nga bëgg tey par exemple yaa ngi dóor fii bëgg dóor fee temps répété wala dem par exemple jouer ay concert am staff boo xam ni da ngay liggéey musicalement pour pour pour dem sa yoon est-ce que la xaw a porter préjudice di la yàqal tuuti. bonne question. Mm-hmm. danga wax lu nice. mais loolu noonu DJ Sow mais loolu noonu emploi du temps yooyu. Mm-hmm. emploi du boo ko amee rek moo ñu moo tax maanaam français yi maanaam tubaab yi ah mm-hmm. def emploi mm-hmm. mais loolu la lu amul emploi du temps te emploi du temps da ngay xool naka la mun na mun nga si forcé mun nga si bañ a forcé. ñun ñooñu ñu koy def ñun ñooñu ñu koy def parce que si nga boo amee beneen job jël hip hop nga boole ko ngay dem ak moom ah. nga am sa xel am sa conseil nga am sa emploi temps parce que am na fu ngay dem boo tollee rek sa emploi temps boobu bu la jëralee am am koom-koom rek ki yàlla da ngay def nii mhm. yow da ngay def nii rek ci bi ngay topp dafa dañoo dema dema dem boo yàlla dimbale xam naka la après ñu jéem a naka lañ koy wax ñu a coñaas mhm. ñu jéem a koof looloo tax mhm. mais benn kay instant yow tu n'es ka que rien doo dara doo lenn amoo dara mais nag son maanaam moo koy def xaalis moo koy def. doo ñëw rek nga bëgg a prise de voix wala nga bëgg a maanaam euh, kii waaw mais loolu foog nga am te loolu loolu foog nga nga def nii gayen mm-hmm. ah nag pas maanaam comme loxo yi affaire yooyu noonu mm-hmm. am loo laal mm-hmm. te loolu ngay laal noonu suñ métier bi la bokk il faut nga àndaale ko dara boo demee ba dara bi dem ba mu doon dara nga doog a di def dara te dara boobu noonu nga jëmale ko ci hip hop bi. man loolu laa xam quoi. waaw loolu laa xam eh, eh, tey euh, par exemple euh, difficulté jafe-jafe yi nga xam ni moom ngeen am au niveau local ci ci ci ci daara ya beaucoup de problème ci ci ci ci hip hop bi lan mooy seen jafe-jafe pratiquement waxoon nga ñuy concert yi euh, bariwul malgré dinaay am. Euh, studio yi matewu ko. malgré si tamit tey am na nañu benn boo xam ni ah euh, def aar records. Euh, si si si si waaw ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. mais y' a beaucoup de choses yoo xam ni dafa manqué ci au niveau local yan jafe-jafe nga sentir ni tey par exemple. bu bu bu bu buñ ci tegoon loxo rek. Mm-hmm. rab daara day dem. dafa bëri ay gàllankoor sëñ bi. Mm-hmm. rab daara fépp la nag mais daara. man ci raw waaw daf boo ci raw. waaw parce que man j'ai vécu beaucoup de choses. waaw xam nga def nga zik. waaw côté yooyu noonu mais man daara ma loolu mosut mosut am quoi. moo tax dama tey sama njàmbur kuur quoi parce que fekk naa leen fi quoi. te xam nga doo ànd ak mooy loolu. actuellement maa ngi daara amul ku ma xamul muy ci booy ci maire yi ci ñëpp. am si ndox ndox ndox da ngay dégg. waaw mais am na feneen dama kóol déglu. waaw parce que am na loolu te loolu bu amee gàllankoor bu amee dëkk du dem fenn. excuse. Ừ. Ừ. gàllankoor bu amee. Mhm. dëkk du dem fenn. Mhm. ay booy lañu ay jeune lañu ay xa mais gis nga xool. Mhm. sëñ bi xool dafa garaaw. nit ki il faut yéene am yéenante bi moo des. maanaam daal yéenante wu ñu bàyyi. ok saa yi fii nag gën na nga gis kuy dox sa gaan ngay jéem a indi bëñ bu mais xoolal. xoolal quoi loolu dafa garaaw loolu dafa garaaw si daara. daara fii nii fu mu nekk nii dëkk jàmm la dafa am jàmm. mais lan moo tax muy am yenn action yi noonu parce que xol yi. ànduñu parce que kii nii gis kii am lu nice mais moom mi xalaat boppam. pourquoi man amuma loolu. loolu am na loolu bokk gàllankoor bagage yi te daara aussi concert yi bëriwuñu de. concert yi dafa bëriwul te concert am na concert politique yi nga xamante ne am na ñooñu demulul comme suñu zaare bu biir bi. bëri na gën a gën a loolu. boo amee am problème. mu nañ jaar ngir zoo mais day ñàng nag. Mhm. moo rek xam naa da ngeen yéen da ngeen bëri jàpp da ngeen bëri yooyu non du loolu. Mhm. maanaam suñu saam yi léeg-léeg day waxal ñun. Mhm. bu ñu ko defee sax dañu ànd ba ñu ngi dem ne ñu ngi jéem a wor xam nga xel dafa garaaw. looloo tax. yaa ngi gis loolu fi bëri woon. te et puis fii booy yi bëgguñu naa am na ñi nga xamante ne dañoo nekk ci gannaaw mais booy dañoo war a topp ñi nga xamante ne ci gannaaw lañ nekk. mais fii booy dafa bëri ay clan te pourtant daara hmm? rëyul ah. daara dafa ndaw. Hmm. daara dafa tuuti. Hmm. te kur yi bëri ay clan. sama mbokk yi passage maa ngi leen di ay kii sama mbokku pële yi ay kii. Ah, waaw ñoom ñoom ñoom frère bant bi ñoom gars yi ñoom xama black ak ñeneen ñeneen yi xama mais quand même ñun ñëpp ay benn lañu ah. ñun ñëpp ay ay ñëpp ñu ñuul lañu. mais quand même moo tax ñun bu ñu doon benn dañuy def lu nice. mais boole bi bu ñu ko naree def. day yàq lu bëri. looloo tax xoolal looloo tax xoolal man dawoon naa sax bu xalaat maanaam dox gàlle ba gàlle. copains yi. Mm-hmm. expliquer ak ñoom waxtaan ak ñoom. Mm-hmm. pour ñu mun a jéem a taxawal maanaam hip hop bi ñu ko gëm quoi. Mm-hmm. mais dama dem dem dem ma affaire bi ni mu mel ma ne ma ceene quoi. dafa am ay jaas ay jaas ma ne xaaral ma ceene man ma wóog sama man loolu arrangé man su ma soññoon maanaam benn dem fenn di gis lenn. mais mango bi bu amulee du dem mais raay dafa amul. ñu waxante dëgg dafa amul si askan wi ci ñëpp. yaa ngi comprendre li ma mm-hmm. mu ngi si liggéey animateurs yi. Mm-hmm. mu ngi si fans yi mu ngi si ñeneen ñeneen dafa des grand instant yii fu mu nekk nii dara baaxut. Mm-hmm. dañuy dem nag di ziarante rek. mais léegi la ñun dañu déglu rajo ñun defuñu. léegi la ñuy déglu rajo suñu déglu tey rajo suñu déglu rajo rek. ñu ngi ci leneen quoi. ok métti na lan moo tax maanaam gars yi nekkuñu ensemble. ñun rappeurs yi. mais est-ce que def jéego en tant que ay artistes euh, xool no leen ciy toogee euh, autour de l'essentiel toog waxtaan jéem a nekk benn parce que. si lu war a mën a am la mais loolu laa wax. Hmm. lu am la. mais loolu nag bi ngay zoo. mais yéen doxul keneen doxu ko est dina am. parce que boo ko dox foog nga dox keneen dox ngeen daje. jàpp bi. kii jàpp fii kii jàpp fii mais loolu moo gën a naaj te loolu mooy am te yow dëggee zo yow nii yow laay wax noonu hmm. mais na ngeen may booy seen sens na jàppale booy na non si diggee parce que jàppale non na ngeen def la mais non bi laa gën a li ñu ni la si du la waaw lu am la waaw ñu ñu ñu ñu mais du si mais du <laughs> lu raw non non waaw mais mais ci lu waaw dama xam waaw ma ne ci lu ñu lu hmm. ñu toll. waaw mooy toll nañu par exemple ñu def seen promotion tey ñu ngi nii yaa ngi yaa yaa ngi ci télé Ida TV. tey adduna bi yëpp. waaw ñu ngi ñu ngi lay seetaan. ñu ngi lay caaj sa bàyyi yaa ngi nii naaj waaw mu ngi pratiquement tey defal na loolu dinañ la invité rajo jox la nga wax dinañ am plateau concert bu amee. dinañ la invité nga joué kon animateurs yi am na rôle boo xam ñu ngi koy joué. mais des na ci yéen aussi. Mm-hmm. yéen aussi ngeen a jàppale seen bopp parce que ñun ñun suñu rôle suñu devoir ñu ngi koy def lu mel nii la rek mooy. MC bëgg na nu àdduna bi yëpp xam ko te indi na la ci UD TV. dëgg yëpp xam la waxtaan ak yow am na loo xam ne aussi yéen artistes yi aussi yéen yéen a ko a def ñun nga xam ne suñu liggéey day yomb rek yaa ngi wax lu dëgg. joolaa ñu ne malagan. soo see ñu ne tooñaalon. yaa ngi dëgg. yaa ngi wax lu raayit lu am yéen a ngi ci yoon yeneen a ngi ci sax. mais du ñàkk tamit ñun tamit lu ñu mën a gis lu ñu gis. Mm-hmm. ñu wax leen ko. Mm-hmm. maanaam tey boo gisee ñu teg loolu noonu. Mm-hmm. parce que ñun xam nañu ne da ngeen jege. da ngeen jege ku jege. yaa ngi comprendre te ku jege ku jege rek. waaw affaire yi mun naa mais nag tamit boo jàppalee nit na nga ko fekk ci yoon quoi. loolu dafa am mais man damaa xam xam naa ne man instant yi fu mu ne man xam naa yéen du ngeen capable man dama leen xam mais tey am na nu muy demee nu ngeen di defee rek ak grand yi rek affaire bi day mool quoi mais c'est que tamit yéen tam dafa am leen lu ragal dafa mel ni ki waaw parce que indiscipliné moom kenn dugg te melokaan boo koy defee am na yeneen yeneen grand yi wala bu buñ naree dem sa duñ dem mais yéen man man loolu laay su toogee loolu laay xalaat mais mais avant avant avant ñu jeexal émission bi. Euh, ñëw aussi euh, euh, li nga am na solo stylo sa style bi. waaw style bi. style bi nga ñëw ci parce que bu la gisee sur scène style bi ak nii ni nga jëm style bi. si si dafa xaw a graaw lan moo bi montre yi <laughs> casque bi cap bi style bi dafa graaw. si. Eh, est-ce que mën nga ci dalal moom lan mooy. dafa dafa garaaw dafa garaaw ndax man dama garaaw. Mhm. man dama ñàng dama garaaw waaw yàlla dafa garaaw dafa ñàng boo koy waxee yeneen gars yi jëlee ko ak négativement. Mhm. xam nga yooyu de ku garaaw la ku mhm. ñàng la. kon mbindee mi yàlla dafa war a garaaw. waaw. am na fu lay toll sa gravité bi da nga koy wone. yaa ngi gis. waaw lii du dara lii melokaan la li nga xamante ne. plateau bi moo ko laaj. waaw boo génnee da mel ni dof. mais am na nu ngay nekkee fee mooy loolu lii mm-hmm. melokaan la bi nga xamante ne koy jox jaam yi ñoom ñoo ko soxla pour l'instant mm-hmm. mais du dara lii nii da ngay rafetal ndax taar dafa baax waaw mm-hmm. yaa ngi dégg man bëgg naa dem arjana aljana moom la ñëpp bëgg moom la ñëpp kon lii nii ci taaruwaay bi la ci yooyu la bëgg la ah, la bokk yëpp ci côté yooyu noonu yaa ngi bi ak colin bi ak yooyu noonu ni que maanaam ñun bu ñun kan mënu kan mënul rey old school yi waay. ñun bu ñu démb waaw démb. man du old school. Mm-hmm. Mm-hmm. lii day wane ni ki. Mm-hmm. maanaam ñi nga xamante ne. dañoo bëgg a jéngi wala bëgg a xam nga jàddu koñ. bu ñu gisee lii bu ñu doonee gor seen xol dafa war dafa war a dellu si. xool waajur bu mu solee. ñu maanaam dellu ci moom parce que leneen ne day indi lu bëre. parce que lu teng lay doon te lu teng day indi lu graw muy ci jigen muy ci goor mhm. lolu tax ñun yegg na la man dama rouge dama ñang dama graw so mo fekkee manam ci wàllum yi ni kenen lay doon mhm. so mo fekkee fen ma doonaat kenen mhm. gravité bi mom dafa yàgg ci nek ci man lepp lu may def dama metti dama ñang dama parce que dama ko sentir ci dérëb bi la waaw lolu tax man mu melni ni quoi wax na sa projet gaaw bala ngay ñuy tagoto lan moy sa projet bu gëna jégué bo xamni yang koy wacc muy projet yi jege. waaw naa laaj question de. question la question la de. Ah. maa ngi nuyu <clears throat> sa waa passage ni raf. waaw waaw que rab bu muy dóor dafa dafa mool quoi. ok waaw mooy lu mooy que yow keroog gis naa la ngay décoller si sa <laughs> nga laal fu jege maa instant nii nii maa ci wàllu beneen côté. ok parce bi man. su ma ko naree jël au sérieux dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg laa la wax ah bàyyi ko sérieux non non bàyyi ma waxee ko noonu xam nga dama waxee ko noonu booy ñoo ma yóbbaale bu bëree ay yooyu noonu hmm. ah da ngay ànd ak ñoom hmm. mais loolu yëpp si samba la waaw est-ce que yaa ngi dégg fu ma wax noonu hmm. waaw foofu laa la expliqué noonu man samay projet mais maanaam instant yi luy sama projet parce que bind naa bagage yi bëri ñi nga ak man waaw sama projet que mooy maanaam instant ni fu mu nekk nii def fi lu baax lu moor rab rab bu dëgër rab bi nga xamante ne ñi avant loolu aussi tamit bëgg naa ñi ñi man ko doon benn mm-hmm. ñu bëggante xama mm-hmm. waaw ma teg fi benn projet bu mag mm-hmm. loolu laa bëggoon projet yi bëri nañu dañoo bëri lool lool lool parce que projet boo gis maanaam donc il faut mu ñor bu ñortee rek du dem ñor na sax mais foog nga gën ko rënkaat mm-hmm. mu ñor defar ko balaa defar ko balaa nga koy yàq mm-hmm. maa si ay projet bëri surtout si wàllum musique bi mm-hmm. parce que musique bi am naa fa am na ay booy muy jëli waaw waaw am naa formé naa fi ay jël formé naa fi ay ay ay waaw non fans club man boobu ñoom la quoi dëgg la mais maanaam formé naa ay gel jokko microphone bi jokko bik ak fëy muy bind di dóor maanaam ay yoo xam ne rab

te ñi nga ak man mais lu yomb bu ñu bëggee noonu la yomb lu yomb di boo ko bëggee man après damay jéem a loolu quoi. loolu ko waaw loolu. acca euh, looy tàggatoo gars yi. maa ngi tàggatoo vraiment waaw tàggatoo bi nga xamante ne fii la. du tàggatoo quoi waaw du tàggatoo waaw boobu noonu yàlla na yéex. ñu ngi si sant yàlla di di wax ni gars yi. Mm-hmm. lii bu ñu ko defee dañ ko defar dañ ko def pour defar. Mm-hmm. waaw ñu ngi sant yàlla ñu ngi gërëm yàlla vraiment lii de dañuy ñaan yàlla na dem ci kanam. te xam naa ci kanam la jëm mm-hmm. mais xol yi surtout ci xol yi na doon benn rek mooy loolu mm-hmm. lii nice na mm-hmm. lii mi ngi doo mi ngi mi ngi mi door a door waaw mi ngi door a door léegi maa ngi tagoo gars yi sama gars yi il faut ngeen bëgg affaire bi ngeen gëm ko boo leen ko bëggee ngeen gëm rek affaire bi day mool quoi di jeeso na ngeen gars yi da ngeen may seen sens di jeeso da ngeen ko ñaanal parce que si loolu mu nekk nii vraiment macha allah quoi yàlla na dem ci kanam imposé neexut. Mm-hmm. waaw imposé neexut te mi ngi jóob te nit ki boo joobee nga koy gis rek mooy loolu quoi. Mm-hmm. loolu laa leen mën a tàggatoo kontaan nañ ci yéen yal na dem ci kanam sama fansi ak ñu dul samay fans yi. Mm-hmm. sama papa ak sama yaay. Euh, sama naka lañ koy waxee sax samay nawle yi. ñu fi nekk daara ñu si jàpp ak ñu si jàpp ñooñu yëpp maa ngi leen di ziar. ok di leen gën ñaanal ñu am gudd fan wér gu yaram am koom-koom am lépp ndax. ci la lépp nekk. bëri ay idée vraiment dem ci kanam na law. MC Ndokh la. yee macha allah. jaajëf euh, ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal gars yi ñu doon seetaan ci idée TV di leen bëggee bu baax a baax euh, di jaajëfal waa régie Sidi euh, Baye ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di leen sant di leen jox di daje beneen yoon ak beneen talent jaajëf gars yi show time la.